Euh, dialogue bi président Sall woote c'est pour le trente ci lay tàmbali euh, c'est dans une semaine vous maintenez votre position de ne de ne pas y prendre part. Euh, nous on l'a dit on a fait un communiqué pour jusqu'à présent lu ñu wax mooy on ne prendra pas part on ne prendra pas part à aucun dialogue boo xam ni lu luñ ci war a discuter amul njëriñ pour le peuple sénégalais. loolu la ñu wax donc soo xoolee ndeng yaa ngi naan d'ailleurs le dialogue aura lieu le 30 mais man depuis deux ou trois jours euh, maa ngi dégg à travers la presse mm également même quelques journalistes m'avaient appelé il n'y a pas eu pour le moment une invitation formelle bu qui que ce soit. Mm. ni des termes de référence annoncés ni quoi que ce soit bu ñu jox pour dina effectivement. mais vous avez rejeté l'appel sans attendre une invitation. waaw xaaru leen comme on est des acteurs politiques xam nañu. Euh, kii bon bul fàtt man mi moom bu may wax ak yow. moi je suis membre de m dans la commission euh, communication. Euh, dafa am yu ñuy laaj yu ñuy laaj ñett ñeenti point la mun na dem sax ba juróom benn bi c'est non à un troisième mandat deuxième bu deuxièmement c'est libérer les détenus politiques troisièmement on parle de les comment faire en sorte pour que qu'il y ait une participation de tous les acteurs au niveau de de la de de la présidentielle ensuite ñu ne revoir un peu le processus électoral ak éventuellement le parrainage ak yooyu ni que ñeenti ñi bëgguñu ko discuter foofu. soo mhm. ne troisième mandat d'ailleurs le. ministre Benno Sambou l'a bien dit. Et d'ailleurs, ça nous un peu ébahi parce que quand je sais Vous étiez ensemble avec lui au dialogue On était ensemble au, avec lui et moi, j'ai ici, <laughs> j'ai ramené avec moi mhm. sous mes yeux, mhm. ben, le compte rendu d'un communiqué. Bon, je le précise, c'était dans la salle des ministères des Affaires étrangères parce qu'on avait délocalisé le dialogue là-bas oui. pour quelque temps. Ah, Lui-même, Bougnou mhm. ni que les cas, quand les cas Karim Ouad et euh, Khalifa se sont invités dans le dialogue, Mom, qui était le coordonnateur du pôle de la majorité, oui. s'était levé et dit avait dit euh, fii kenn ay politique la ñu mënuñu fi toog fii di régler des cas de justice donc ils ont refusé de même

andi ñu gis ni que su ko soo bëggul wax troisième mandat bu euh, le président l'a entendu également de avec un journaliste dans la presse dire que y a pas de détenu politique mm-hmm. te ñun yooyu ñooy pratiquement suñu ay revendication on parle de de de de détenu euh, euh, revoir beaucoup beaucoup de choses yoo xam ne ñoom mais yéen est-ce que amul deux raisons yoo xam ne rek war na mën ngeen teew fa bi ci njëkk mooy problème du parrainage bi nga xam ne euh, ni ñu disqualifié woon Malick Gakou ci bi vraiment euh, euh, nga xam ne yéen bokk opposition bi te ñu concerné tey jii nii ci li nga xam ne moom la Benoît Sambou wax ne moom la war a waxtaanee. bon soo xoolee les compagnons de lutte yi ngay wax c'est le cas Karim et le cas Khalifa Sall ñun ci Yewwi Askan Wi bon xam nga ni que euh, Karim Wade euh, à travers le PDS bokkuñu Yewwi Askan Wi ñoom ñi ngi foofu à côté donc il y a le cas Khalifa Sall Khalifa avec nous sur le troisième mandat il est avec nous sur les autres points donc d'ailleurs aujourd'hui j'ai entendu en l'occurrence un de ses porte-parole de, de, de dans la presse dire mm-hmm. que ñoom su fekkee ne dañ waruñu fa wax ay waxi troisième mandat ils le maintiennent c'est pas une condition négociable parce que lu ñu njort mooy ñoom pour ñu mën a négocier euh, leur participation dañu bëggoon a joxe euh, dire oui à un troisième mandat alors qu'ils l'ont refuté. Ils ont bien dit, aujourd'hui ils ont communiqué là-dessus non. Alors que bon, il y a une semaine ou deux semaines, on entendait d'autres leaders de cette même, de cette même euh, organisation dire ni que ñoom daal nañu bokk rek à tous les prix. loolu moo xawoon nañ ñaaw suñu xel mais pourvu que su fekkee ni ñëpp d'accord nañu F24 d'accord nañu Yewwi tout le monde se met d'accord sur le fait que troisième mandat a pas lieu et donc ce n'est pas la peine d'aller se euh, ci sa gis-gis lu ñu mën a jàpp ne kàddu gu jóge ci fu kawe la wala waxam la moom rek parce que aussi c'est pas n'importe qui dans lu ma la ci mën a wax quand on faisait le dialogue politique c'était le coordonnateur du pôle de la majorité et c'était lui qui était le. c'est le même qui s'exprime toujours mhm. donc lu ñuy également dialogue politique bi sera le coordonnateur du pôle de la majorité et lu mu la wax xamal ni que mën nga ko mën nga jàpp ni moom la majorité ah, par rapport ak yéen seen position ndax mën nañu am espoir que mu évoluer avec le temps fii ak ñuy egg ci dialogue bi. Euh, su fekkee ni on est déjà le le le le le le 23 disons 22 ou mais on sera le 23 mm-hmm. dans en une semaine je ne vois pas ci en une semaine lan la ñu war a mën a évoluer lu ñu war a mën a évoluer rek mooy dàq peut-être dialogue bi leeral condition wu dialogue yu leer nañ su boobaa ñu laaj tout le monde tout le monde lan ngeen quelles sont vos attentes ci affaire dialogue bi ñu wax leen ko suñ ñu ne assure parce que le premier dialogue politique je le rappelle bu ñu ne woon ñëw leen dialogue dañu ba a woon mhm. ñu insister ñu ne leen voilà les conditions conditions yoo woon moo doon c'était que le ministre de l'intérieur ne soit pas celui qui va organiser le, oui. le dialogue donc c'est là qu'on a trouvé une commission cellulaire avec euh, feu général Niang ak ñoom Mazid ak ñooñu mhm. ensuite deuxième chose c'est que il fallait euh, que ça ne se passe mhm. ne woon il fallait une commission cellulaire c'est une chose. Et deuxièmement, il faut que ça qu'on qu qu puisse intégrer beaucoup, beaucoup de points au Khamni. On était en train de les revendiquer. C'est ce qui a fait que, si nous dialogue, ne serait-ce pour s'accorder sur les termes de référence, mm -hmm. ça nous a pris un mois et demi. Mm -hmm. Uniquement pour voir quels sont les sujets qui seront débattus Débattu. ici. alors que là on entend xaw ma ndax dëgg la am du dëgg ni dialogue doit durer maximum deux semaines deux à trois semaines mais alors que ñun on a pris un mois et demi parce que dialogue bi c'est pas c'est c'est, des contradictions mais est-ce est est euh, diggante langue politique yi maanaam entre les acteurs de l'opposition ak euh, le principal acteur du pouvoir bi Macky Sall moom mooy moom mooy xool maanaam li nga war a waxtaane est-ce que war naa bëri en fait a waxtaane ñeenti point la wax ñoom xam nañ ko te nee nañ mhm. ñoom bu duñ donc ya amul sens ñu dem fa nee nañu duñ ci wax. Benoît Sambou wax na ko. Macky euh, le président Macky Sall mais xëy na aussi loolu ça n'engage parce que duñ ci wax loolu tu invites des gens à dialoguer déjà wutale ay barrières. waaw moo tax que mu engagé ko moom rek. moo tax ñun fi mu toll nii su fekkee ni ñoom dialogue boobu ba léegi. ñu ngi wax mhm. waxi dialogue te newuñu formellement. des invitations pour dire li ak lii lañ fay discuter. ñuy dégg tamit nous également on va e-, être dans des conjectures dans des hypothèses ne ah non su fekkee ni waruñu fa waxale li dialogue boobu amul ñu njëriñ. Ah. amaluñu njëriñ.